Cheikh Amar laa tudd bokk ci cellule de communication bu Touba Ca Kanam dañuy sant yàlla rek xam nga xew-xew bi nga xam ne ñun ñëpp teg nañ ci sun bët ci liggéey bi Touba Ca Kanam sumboon ci ndigalal Serigne Mountakha ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci la ñaari jàmbaar di ay ndaw yoo xam ne liggéey bi ñoroon na leen jeex ci seen xol naka jekk nag tàmbale wuñ ko ci Touba Ca Kanam ñoom dafa mel ne seen dund yëpp ci liggéeyal Sëñ Touba rek lañ ba sunu borom mom leen demb ci lo xamne ñepp japp nañu nit ne te nangu nañ ko loolu sunu borom dogal la ndax ñu matal la ñuy rafet ndort nak ci li serigne muntaha wax bi fi kilifa yi deme serigne Abibu ak serigne Abdoulaat Abibu euh, mu ne ñoo de dañoo shahid loolu yaakar na ne mburit bu nek bo sañoon di nga am mujju gu rafet li bok na ci mujju gu rafet euh, li événement bi nak comme ni ko kilifa gi waxe demb rek matukaay yi ñu waroon jël ci wàllu sécurité xam ngeen ne jël nañ ko ndax foofu du nit moo koy gas defe naa image yi ñëpp nga gis poquelin bi kon dañuy masawu mbooleem ñi nga xam ne ñooy waa Touba kanam mburit yëpp jullit yëpp eh, te it mën nañu wax it mën nañ ko jaal sax sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ñooñu doon jàppale ci liggéey bi muy waa Ageroute muy waa ONAS muy commune bu Touba ndax fépp fu ñu dem ba war a dagg tali bi rek waa Ageroute ñooy ñëw daggal ñu ko poquelin bi ñëw gas ñu liggéey bi kon jàpp naa ne ñoo ñëpp mën nañ leen koo jaal Touba ca kanam nag ni mu war a taxawee rek ñoom ñëpp la ñuy xaar nii bu ñëwee ñu taxaw leen li ci war yëpp Touba ca kanam def ko tey ñaan sunu borom rek comme ni ko sëñ boo waxee xare leen caajana yu gën a kawe. xam nga lii soññee la war a mën a doon mënul doon leneen ndax accident de travail fu nekk lay am te ku sañoon booy am accident de travail mu doon travail boo xam ne da nga ko doon travail ki nga xam ne nii moo mat a liggéeyal muy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul nit faatu na ci anam wu nekk yaakaar naa ne kon tey bu fekkee ne dañuy liggéey liggéey boo xam ne nit ñi dañoo jël seen ñaq seen jëmm seen lépp jox ko Serigne Bamba bu leen yàlla moomee ci barab boobu loolu ab soññee la war a doon ci ñun ñëpp kon euh, dañuy ñaan rek tey refer njort ci ndaw ñooñu nga xam ne wax naa leen seen ndaw yëpp ci Serigne Touba lañ ko def parce que image yi ñuy génn nii ngeen koy gis sax fu ngeen leen fekk ñu ngi xidma kon loolu ab soññee lay doon ci murid yi rek kon ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un delluwaat lépp waat ci yàlla. ndax euh, yàlla moom bakkan bu bu mu wàcc ci kaw suuf rek dana la fi jëlewaat xalaqal mawt wal xayaat dee laa njëkk a bind ci dund kon kullu nafsin saay xatul mawt bakkan bu ñam dund it dana ñam dee xale yi faatu ci liggéeyub Tuubaa ci kanam bi dañuy xam ne njëkkuñoo faatu ci yoonu yàlla waaye ñu bari dañuy ñaan yàlla faatu ci yoonu yàlla boo delluwaatee ci alxuraan mi ñuy xamal ne ñi nga xam ne dañoo jaay yàlla seen bakkan seenu pay moo ëllëg mooy àjjana te xale yi dañoo jaay yàlla seen bakkan mooy xale bu toll ci sa diggu doole walanteeru di liggéey ci liggéeyu Serigne tubaab bi nga xam ne moo waxoone ne inna lasina saarahoo fi xidmati fa lahumu diyaaru wasal jannati ñi nga xam ne dañuy njëkkante suñu dëggee sama liggéey daw di ca jëm suñu faatoo àjjana mooy seen kër kon xale yi mën nañoo jàpp ne dañoo jihaat dañoo jihaat dañoo doon jihaat ba seen bakkan yam ci alhamdulilahi rabbil ne nag bi nga xamee ne dogalab yàlla bi mu wàccee ci ñoom Touba ci kanam gépp yëgandoo nañ ne yàlla wàcc na dogalam ci ñoom ñu àndandoo dem ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha yëgal ko loolu moom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi kaddu goom yëkkati rek doy na mooy ñii dañoo saxit dañoo dee ci xarab toolub yàlla bi ba noppi ñaanal leen ñaanu xalif général des mourides bari na ñoo xam ne buñ faatu woon bëgg nañ Serigne Touba ñaanal leen te xale yooyu am na ñaanu xalif général des mourides bi ñu ko amee ba noppi ñu àndandoo ak Serigne Abibou ak mboolem ñu sëti Serigne Touba yëpp dem ci kër seeni wayjur ñu fekk ñoom ñu ñuy nangu dogalub yàlla xam ne yàllaa leen ko joxoon moo ko jël te lim ko jëlee moo leen gënal mu koy jëlee ci leneen bari na xale yoo xam ne dee nañ ci loo xamante ni bii doonut lu yàlla gërëm bu dee dikk rek dara mënu ko fànq waaye nag alhamdulilah rabil alamin bi nga xamee ne ñoom dañoo dee ci toolub yàlla dee ci loo xam ne lu yàlla gërëm la loolu moo tax Touba ca kanam gépp àndandoo ñëw mbooleem njabootu maam Cheikh Rahima Fall sëti sëñ Touba yi àndandoo ñëw ci ci denc bi danañ àndandoo waat dem ci kër ya jël en charge lépp loo xam ne luñ ca war def la Touba ca kanam def ko waaye di ko masawu ñëpp nag di ñaan yàlla yal leen yàlla xare àjjana ci barke Cheikhul Khadim ban lolu kan. bima amé rek automatiquement dañu daldi wax né nañu arrêté liggéey bi yépp mbolém santé Touba ci kanam yépp dañ ko arrêté nga xamné bis bi bisub sarax lañ ko jappé wala bisub bisub euh, wat ci yalla arrêté activité yépp téwut Touba ci kanam dafa yëkëti limb ab lim donté bakkan kenn mënu ko jot wax seen wayjur nako sarax ci bu leen ci def dara nañ ko bàyyi ak Touba ci kanam ki ci ki ci ñu jël ko en charge ku daan dimbale jaami yàlla yi bu leen dara jotul bu fekkee ne dogal ñëw na ci yow kenn du ñaatalee sa taxawaay xanaa di gën a sensibiliser nit ñi wan leen ne dogal bi yàlla bu wàcc ci ñoom la te bu ñëwee kenn mënu koo fànq ala ñi ngi ñaan yàlla nag dogal boobu yàlla bu ko yàlla wàcce waat ci Touba ci kanam waaye di encouragé waat nit ñëpp leen defaral sëñ Touba daal lu mu ca fekk nit ki daf ko war a jaral ndax nit ñi dañuy faral di wax ne bu doon badar la dañuy jeex te lii la du badar laajut bakkan ñàq yi rek la laaj kon nañu gën a engagé waat ci defal sëñ Touba bi ni mu war a mel mu mel ni te xam ne lii dogal la rek bu wàcc yàlla na ko yàlla yemale fii ci barke